bismillahi irrahmani irrahim alhamdulilahi rabbil alamin wa salla wa sallama ala nabiyina muhammadin wa alihi wa sahbih radiallahu an cheikhina ahmad alxadim wa qaada lahu maxtaara lahu wa nafana bihi amin asalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh mbokk yi ñu ngi nuyoo ñu ngi ziyaare ci weer wu tedd wi waaye ci jataayu xam-xam bi di ñaan suñ boroom lépp li nga xam ne am na ci weer wi ci ngëneel mu boole nu ko defal ñu teew fi tey ci jataayub xam-xam waaye fas ko yéene ànd ak docteur Serigne Sam Bousso mu fas yéene séq ak ñun waxtaan mu mel ni Serigne Sam xam nañ ko xam ngoo xam ne mën naa tax du jar di ci yaatal ci di ko xamle waaye lum gàtt gàtt war nañoo junj boroom xam-xam bu mag la waaye bindkat bu mag la itam bu ñu xam fii ak feneen ci biir réew mi ngir taxawaayam ci xam-xam taxawaayam bu am solo waxtaan wi mu fas yéene séq ak ñun tey buñ ko doon tënk dañ naan Tuubaa wa afaaqu mustaqbaliha fi dawi tadchini mujammaci cheikh ahmad alxadim maanaam jàngat ci ëllëgu tuubaa bu sukkandikoo ci euh, tàmbalik liggéey bi ak ubbite gi ñu ubbi jàngukaay bu mag boobu ci biir tuubaa te mooy mujammacu cheikh ahmad alxadim yan jàngat lañ mën a def ci ëllëgu Touba buñ sukkandikoo ci ubbi jàngukaay bu mag boobu yi loolu la sëriñ Sam fas yéene waxtaan ak ñun mu mel ne jox nañ ko nag boroom ndax wax naa léegi ne boroom xam-xam la bindkat bu mag la bu ñu xam waaye itam di kilifa ci mujjab ma boobu jàngukaay bu mag boobu ñu tudd nekkoon ci ba mu nekkee projet maanaam nekk rek ab xalaat nekk vision bu ñu war a jëmmal waaye topp ko ca waajal ga ba ni daara ju mag yi jàngukaay bu mag boobu bi taxawee tey jii mu bokk ci kilifa yi nga xam ne ñu ngànk liggéey kon war a séq ñun waxtaan ci thème boobu yi nga xam ne jàpp nañ ne thème bu am solo la ndax ku wax Touba wax dëkk boobu nga xam ne sëriñ Touba xaada lahu llahu maxtaara lahu moo ko sanc boobaak léegi yàgg na mu jaar ci ay jaarwaay yu wuute nekk dëkk bu ñu sanc ngir jaamu yàlla ngir defar doomu adama boobaak léegi nag yàgg na am na fum jaar ba am fu mu yegg si dëkk boobu di Touba foofu mu yegg si nag lu baree baree bari mën na koo màndargaal waaye bokk na ca eh, ubbi teg jàngukaay bu mag boobu ñu tudd léegi di xew-xew bu mag ci dunduk Touba muy jàngukaay boo xam ne soloom ak ab dayoom lu yaatoo yaatu la ndax mel na ni lépp luy am njàng te cosaanoo fii bàyyi nañ ko fa xel waaye lépp loo xam ne itam jamono fi nu toll soxla na ko ngir doomu aadama mën a matal mission bi ko suñ borom teg ci kaw suuf mu war a defar ci kaw suuf lépp lu mu soxla ngir mën matal mission boobu loolu mel na ne bàyyi loo nañ ko bàyyi nañ ko xel ci mu jamaa boobu te defar ci kaw suuf mission doomu aadama la mu bokk ci mission yi ko suñu boroom sant wa anshaakum min al ardi wastaamarakum kon fexe ba suuf jag fexe ba jekk suuf ba man koo jariñoo àdduna jekk loolu mission doomu adama la mel na ni jàngukaay boobu waajal nañ fa lépp luy njàngum cosaan mu ñu xamoon ci alquran ak la ca tege waaye waajal nañ ko itam ba fépp fu ci jamono toll lépp li ñu soxla ngir mën a taxawee suñu taxawaay boobu matal suñu mission boobu yàlla def na ni waajal nañ ko mu mel ne kon bu ñuy wax tey Touba faw nu wax xew-xew bu mag boobu ak amuk jàngukaay bu mag boobu mu mel ne nag sëñ Saam bëgg nañoo waxtaanale kon ëllëgu Touba bu ñu sukkandikoo ci amuk jàngukaay boobu ak ubbiteem ñu yaakaar rafet njot lool ne thème bu am solo la ndax lu mu gàtt-gàtt danañ ci xam diggante Touba démb ak tey waaye dinañ xam itam rôle bu am solo bi nga xam ne mujammaw Cheikh Ahmadul Khadim euh, am na ko ci wàllu jàng ak jàngale ak forme doomu aadama waaye itam fexe ba gëstu gëstu yi nga xam ne dañ ko war di def gëstu yooyu tege ci yoon gëstu yooyu di am ci anam ga gën a xarañ ga gën a mat loolu tax ñu jàpp nekkoon kon thème bu am solo la bu jara waxtaanee la ngir bañ a guddal dañuy jox sëriñ Sam kon kaddu gi ci thème bu am solo yi sëriñ bi bismillah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 noo ngi leen di nuyu bu baax di leen ziyaare di leen ndokkeel ci weer wu tedd mi ak fan yu tedd yi nekk di jiital nag ziyaare suñu kilifa yi muy Cheikh Mouhamadou Mountakha xafidahu llahu taala wa ayadahu wa nasara di ko ñaanal suñu boroom yokk ko wér yokk aw fanam mu àggale ay naalam te mu ànd ko ak di ndokkeel bu baax daayiratu muqaddamatul xidma di ci jiital al imam sëriñ Aafiya liggéey bu am solo bii nga xam ne noo koy taxawu eh, mu am solo lool ci dundal weer wi ci xam-xam di ko defee nag ci barab bii nga xam ne barab bu ko mat la barabu xam-xam la di sant bu baax alfatih Sëriñ Isa ci ubbi gi ni mu ko waxee ñun ñëpp wala ñu bari ci ñoom fekkee nañ ci weeru rajab yi weesu ci fukki fan yaa juróom ubbi daara ji nga xam ne daaray cheikhul xadim radiallahu taala anhu cheikh mohamadul muntaka jiite ubbi tega muy daara joo xam ne si incha wax na ko daara juy jëmmal bëgg-bëggub Sëriñ Tuubaa radiallahu taala mu doon xew-xew bu am solo ci yoon wi ci lislaam ci réew mi ndax daara joo xam ne dafa ñëw bokk ci liy mottali bëgg-bëggub Sëriñ Tuubaa ci dëkkam bii ndax mu ñëpp xam nañ ne sëriñ bi moom dafa bëggoon dëkk bii di Tuubaa nekk dëkkub xam-xam dëkkub jaamu yàlla dëkkub jikko yu rafet dëkkub liggéey fàggu lu lew wax ko fu bari ci Matlabul Fawzayni ci ñaan yu baree baree bari waj'alhu da'ban maskana ta'allumi wa mawdi'a fikrati wa tafakkuri ak yeneen bayit yoo xam ne bari la lépp rek ngir bëgg suñu boroom defal ko dëkk bi muy dëkkub xam-xam bu am njariñ waaye dëkku jaamu yàlla waaye dëkku jikko yu rafet ak liggéey waaye daara ji kon di jëmmalit yéeney Cheikh Mouhamadul Mountakha ci ñu am am njàng bu baax ak yaram bu baax nga xam ne ku ko xam-xam yitteel ci bëgg xam-xam ak bëgg nit ñi jariñu lépp lu ñuy def teg ko ci xam-xam ndax ni mu xame wàccuwaayu xam-xam ci njàngaleem Sëriñ Tuubaa radiyallaahu anhu bëgg tuubaa fépp dëkkub xam-xam xam-xamu lislaam bu ñuy tudd ci àdduna bi buñ demee ci kanam tuuti tuubaa bokk ca yooya wala mu jiitu ca loola na mu ko waxe ba muy woote wooteem ba kon su suñu ubbee jàngukaay bi mu doon jàngukaay boo xam ne dafa ñëw di mottali rekk liggéey yu fi fekk ndax ba fi sëriñ bi nekkee lañ sampoon ay daara daara yooya di wëy di gën a yaatu ba agsi ci jamono ji man nañoo tudd daara yi sëriñ mu dem daara yi sëriñ abibu daara yi sëriñ mbàkke buso daara yu yàgg yooyu ci daara yi daara yi nga xam ne cheikh mohamadul murtada moo ko ubbi ak sëriñ cheikh mbàkke gaynde Fatma yépp di jëmmal rek bëgg-bëggu sëriñ bi bañ agsi ci daara yi nga xam ne sëriñ Tuubaa Cheikh Ahmadou Muntaqa moo ko ubbi ubbil ko yoon yépp ubbil ko lislaam yépp ubbil ko diine ji mu nekk ci mu ñëw ci waxtu woo xam ne nag dañoo nekk ci jafe-jafe jàng ak jàngale mooy système éducatif yi ju àdduna bi yépp wala rawatina suñu réew yi nga xam ne dañoo néew doole seen système bi dañoo nekk ci jafe-jafe daanaka système bu ci matale boo xam ne yaa ngay jooxe la tax a jóg jafe na daanaka rawatina suñu réew mii nga xam ne ba ñu amee indépendance ba day ñu ngi jéem a jubbanti ak a joyanti suñu njàng mi ak suñu yar bi suñu système éducatif kon nag buñ ko defee ci waxtu woowu defe ko ci dëkk bii nag dëkk bii di Touba faw mu am ay jeexit ci ëllëgu dëkk bi kon waxtaane loolu muy jàngat xëy na taxawaay bi nga xam ne jàngu bi dina ko am ci ëllëgu dëkk bi mën na ko am ci ëllëgu dëkk bi loolu lu am solo la ndax ci lañuy xame dëgg-dëgg wàccuwaayu liggéey bu rëy bii ak gis-gis bi nga xam ne moom la ci Cheikh Mouhamadou Mountakha xafisahullahu taala am kon waxtaan wi Sëriñ Isaa ko rek dañ koy tënk ci ñaari tomb yu mag rek mooy faw bala ngaa ñëw ci ëllëg nga deltu gestu sa ginnaaw xool dém bi tuubaa ak tayi tuubaa doo ko xool ban taxawaay la jàngu bi mën a am ci ëllëg tuubaa moo tax li ñuy jiital mooy deltu tuuti ginnaaw ci lu gaaw fàttali li taxoon sëriñ bi sañc dëkk bi ak jamono yi mu ko sancee ak bi mu ko sancee ba noppi ni dëkk bi eh, évolué ba jamonoy tey bii loola jaar bu gaaw rek lañ ci jaar xam nañ ne sëriñ bi bi mu wootee yoonam yoonam bii di yoonu murit te mbàkki kajoor ab diir la fa nekk jóge fa ñëw mbàkki bawal nekk fa diir sañci daaru salaam jóge fa sañci dëkk bii di Tuuba kon mu mel ne mi ngi doon wër barab boo xam ne lii mu woote am ñu ko ci wuy si mu war leen defar war leen yar dana soxla barab boo xam ne bu sell lay doon foo xam ne dana fa mën a def loolu mu bëgg muy man faa jaamu yàlla man faa yar taalibe yi teg leen ci yoon wi leen di taxat texe tey di leen taxa texe ëllëg kon ci diggante boobu nga xam ne dafa woote yoon wi tollu ci defare toll ci yare soxla barab ci dëkk jamono jooju la ko suñu boroom baaxe pàkk bii di Tuubaa muy pàkk bu sell boo xam ne bu sëriñ bi bëggoon la pàkk bu màgg lool nga xam ne ba mu fi nekkee li bëgg lépp daf ko cee daf ko fee ñaan kon jubluwaay bi jiitu ci mu sanc dëkk bi mooy jaamu yàlla waaye dundal sunna si yonent bi sallallahu alayhi wa waaye yar fi murit yi nga xam ne ñoo àndoon ak moom moo tax mu doon wax ne di wax ci Touba ak Daaru Salaam ne li tax ñaari dëkk yooyu mu gën leen sob sopp ci yeneen dëkk yu dul ñoom mooy yéeneem niñ ci selle nga xam ne yéene ñëwu fi ngir di fi dabu si fu ay maamam nekkoon wala da dabu si foo xam ne dafa naat mu man fay sàmm ak jur wala suuf soo xam ne neex naa bayee mu di fi bay si dara ci yooyu taxu ko woon a jóg waaye li ko taxoon a jóg nee na mooy jaamu yàlla képp sellal jaamu ba wéetal ko kon sabab boobu nga xam ne moo tax mu sanc tubaa muy jaamu yàlla rek wéetal ko looloo tax Tuubaa mu bëgg mu gën koo bëgg mook Daaru Salaam ci beneen dëkk bu dul ñoom ñaar ndax barab la boo xam ne lépp lu ko doon gàllankoor bi mu yegsee ci dëkk bi dafa dox digganteem ak gàllankoor yooyee suñu borom subhanahu wa taala kon moo ko waajal dëkk bi ngir li mu bëggoon a jëmbat muy garab boobu nga xam ne moo mujj ay banqaasam tasaaroo ba doon yoonu murit fi mu ko waroon a suuxat ko fi yar ko fi ba mu dëgër mooy Tuubaa nga xam ne lépp lu doonoon gàllankoor suñu boroom da ko ko fangal ci bi mu nekkee ci dëkk bi di Tuubaa moo taxoon bu no chakartuhu li annahu qad saaqani li watani bihi kon ñaareelu jubluwaay ci sañ ci dëkk bi ginnaaw jaamu suñu boroom subhanahu wa taala mooy yar ñi nga xam ne ñoo ko wuy si woon mi mu wootee teg leen ci yoon woo xam ne da leen di yeggale ci suñu boroom subhanahu wa taala doon leen ci yar yar boo xam ne yar bu yéeme la boo xam ne boo demee ci minanul baaqil qadim Cheikh Mouhamad Bachir ma nga fay wax nam nekke woon ak taalibe yi yar ba leen doon yar di defar seen ruux di tàggat seen bakkan di leen jaarale ci yoon woo xam ne di leen di yéegi ci yàlla ci anam gu gaaw waaye si Mouhamad Lamine Diop Dagana moom it mi ngi wax sëriñ bi juróom-ñaari at yim am Tuubaa ni fi nekke woon ni mu yéemoo bay wax ne xamuñu détails yi ni mu doon ni mu nekk woon ak taalibe yi xamuñu détails yi waaye xamuñu it li li doxoon diggam ak boroomam ak diggam ak boppam ci wàllu ni mu doon yare ni mu doon dugale ko génnee ni mu doon jàngale ni mu doon taalifi waaye li xam daal mooy ku fa mos a jóge dangay ngay jub xoj foo dem ñooña di jariñ ci yow ñooña topp kon yar ba yar bu yéeme la mu wax ne wala naalamu fiha baynahu wa bayna rabbihi wa fi nafsihi wa fi ma wa bayna asxaabihi min anwaai tarbiyati wal ixraaji wa taalimi kon anam bu yéeme la fi nekke woon ba na bi mu fi jógee dem ci géej gi lam sampoon yar na fi maas boo xam ne ñoo ko saytu ñoo ko taxawu ba dara xewut ginnaawam ba mu ñëwee nam lam bëggoon njaboot gi nekk ci ñépp da leen fekk ñu nekk ca noona mu wóyal ab liggéeyam kon loola ci Tuubaa gi la jëmbate kenuy yoonu murit ci la jëmmale yar bi nga xam ne moom la doon yar taalibe yi waaye bokkoon na ci bëgg-bëggam ci dëkk bi ginnaaw jaamu yàlla gi ak yar bi dëkk bi mel melokaan woo xam ne dees na fi mën a nekk ci anam gu mucc ayib ba mën a jaamu yàlla ndax buy ñaan day ñaan texeg àdduna ak texeg àllaaxira dëkk bi ku fi nekk nekk ci condition yoo xam ne da nga dund gu teey mën a jaamu yàlla mën a liggéey lépp luy xéewal buy tax ñu man fee nekk sëriñ bi bëgg na ko ci dëkk bi ba ñaan ko ci xasidaam gii di matlabul fawzayni barab yu bari wajbu laha al xayra min al jihaati assitti wabtihi an il afaati ak yeneen bayit yoo xam ne dacay ñaan mu nekk suufus wërsëg suufus xéewal suufus kóolute suuf soo xam ne ku fi nekk da nga mucc ci luy lay gàllankoor sa digg sa boroom waaye luy tax sa dundu naqar yi suñu borom dana la ko ta dana la tàggaleeg moom kon lépp luy condition buy tax nit mën a nekk ci kaw suuf di fi jaamu yàlla jaamu yàlla bu sell sëriñ bi ñaan nag ci nga xam ne kon li mu fiy ñaan ci xéewal ci aw yiw ngir nit ci man nit ki man cee dimbali ko ba mën a jaamu boroomam mën a wéetal boroomam kon ci Tuubaa gii fi la sëriñ bi sampe yoonu murit ci yar bi nga xam ne moom la doon yar taalibe yi waaye ci la yare ak maas goo xam ne ñoo yenu raayaw lislaam raayaw yoonu murit tasaare ko ci réew mi yépp waaye fi Tuubaa gi it fi la waaje nga xam ne ci la doon war a waroon a liggéeyale boroomam liggéeyal ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam muy xidma nga xam ne moom la doon liggéeyal yonent bi sallallahu alayhi gi fi la ko tàmbalee fi la ko doon waajale ba mottalee ko ci diggam ak tubaab yi bi ñu ko génnee ba mu dem ci géej gi waaye Tuubaa gi it fi la sëriñ bi wanee may bi ko suñu boroom may ci mën a nos aw dëkkiin li ñuy wax aménagement nga xam ne da koy nos nos goo xam ne li ko tax a jóg mooy jaamu yàlla dëkkiin wi da ko ciy dimbale ba gis nañ dëkkiin woowu nga xam ne nos googu moo ko nosoon moo wëy di jeexital ci dëkk bi ba ku fi ñëw xam ne dëkk bi dëkkub diine la dëkkub lislaam la màndarga mi fi gën a mag mu nga fi njëkk a seen mooy néegub yàlla mu nekk ci digg dëkk bi mbedd yu mag yépp soqi fi tasaaroo loola di wane ne gis-gisub sëriñ bi ci markaziyatul ibada mooy centralité jaamu yàlla loolu dafa feeñ ci ni mu doon nase ni mu doon nose aw dëkkiinam kon sëriñ bi moom moo sañc dëkk bi yar fi ak njabootam ci diggante juróom-ñaari at waaye ku ne xam na ne diggante 1895 ci la xew-xew yi xew ba mu war a liggéeyali boroomam ci géej gi ci ci bi mu fi jógee ci 1895 jooju man nañ ne dëkkub Touba xaw naa nuru lu gent ndax tubaab bi xam ngeen ni dafa décidé woon ne magitaal bi yépp nañ leen tasaare buñ may kenn mu dëkk ci dëkk bi ca ku nekk fañ la yóbbu wala fa nga nekk duñ la may ngay déplacé wu bëgguñu woon kilifa yi fi sëriñ bi bàyyi woon mën a wéyal liggéey bi mu leen sant santoon ba tax ñu bëggoon leen a gàllankoor tasaare leen nanguwuñ kenn déplacé wu di leen surveiller surveillance bu metti loolu ku dem ci rapport bi Merlin bind ci 21 août 1895 da nga gis mu di ko fa wax ci niñ war a tasaaree magi taalibe yi kon mu mel ni loolu taxoon na Touba ginnaaw sëriñ bi mu xaw a gent daanaka maanaam daanaka kenn nekku fi woon walla bokk ñi néew ñoo fi ñoo fi nekkoon lim nekk ci géej gi bu mu ci géej gi ba ñëw ba dem gànnaar ba ñibbisi bi mu ñëwee ba njaareem la tàmbaliwaat di yable ñuy sañc Touba di yable ñuy sanc di war Touba ay lenn ci ay njabootam mu digal leen ñu sanc foo xam ne du sori Touba nga xam ne bu ñu bu bëggoon a julli si danañ mën a julli si Touba loolu yépp nag muy gis-gis bu sori boo xam ne ci li doon li war a aar Touba la bokk ndax su fekkee ne wërale ne ko ay dëkk yoo xam ne ni Touba mel dëkk yooyu noonu lañ war a mel danañ nekk am ñàkk ci Touba nga xam ne dafa jël Touba di ko wër lépp mu digal ak njabootam ñu sanc ko kon diggante bi nga xamee ne nekk na njaareem lañ tàmbali ay ay ay quartier ci Touba tàmbaliwaat di dund di am ay aw nit bi mu fi jógee nag ci 1927 ñu indi ko tuubaa ci taxawaayu njaboot gi ndax ci njiital Cheikh Mahamadou Moustapha radiallahu taala anhu ci la Touba nit ñi ñëw tàmbali ñëw di fi ziyaare si di fi toxu si di fi dëkk si Touba tàmbalee amu nit nga xam ne kon ci jamonoy ay xalifaam Cheikh Mouhamadou Moustapha Cheikh Mouhamadou Fadil Cheikh ci la Touba tàmbaliwaat di amu nit ba ci année 1970 yi Touba dëkk bu ndaw la woon ndax liñ wax ne moo fi nekkoon ci année soixante-dix yi weesu wutoon euh, euh, fanweeri junni nit yoo xam ne li ci ëpp ci mbay ci lañ nekkoon bi ñu demee nag ba année soixante-dix yi jeex ci la am ak yaatu ak màgg ci wooteeb Cheikh Abdul Ahad radiallahu taala anhu mu am màgg bu gaaw a gaaw kon li nga xam ne mooy dem bi Touba ak ni mu évolué ci diggante boobu loolu dañ koy dañ ko doon gaaral ci gaaral bu gaaw waaye xam nañ ne fi Touba tollu léegi mooy dëkk la boo xam ne buñ doon xool ci dëkk yi gën a mag ci Sénégal buñ capital bi jàllee ci wàllu mbooloo mi fi dëkk Touba mooy ñëw waaye nag suñ boroom def fi ci dëkk bi man yoo xam ne man nañ li tubaab di wax ay potentialité loo xam ne mën naa tax Touba bokk ci dëkk yi gën a ràññ ci àdduna mën nañ ne Touba mën naa doon dëkk boo xam ne modèle lay doon ci niñ ko niñ ko sànce ak niñ ko plané ak ni nga xam ne noonu la évoluer maanaam noonu la noonu lay màggee ndax jafe na loolu ab dëkk di màgg ci anam goo xam ne natt bi mooy jiitu màggaayu dëkk bi dëkk bi bare bare dañuy am jafe-jafe dañuy dem ba dëkk ñu doog a seet naka lañ koy saytoo naka la ñuy jubbantee ba nit ñi mën a dëkk-dëkkin bu ci ay waaye Tuubaa ci gis-gis bu sorit ñi nga xam ne ñoo ko yilif waxtu wu nekk ñi ngi jiitu dëkku dëkkiinu nit ñi ci natt bi ci niñ koy niñ koy niñ koy nose ba tax na 1996 xam ngeen ne ci conférence bu ñu gën tuddee bi ñu jagleeloon dëkkiin wi ci àdduna nga xam ne Nations Unies moo ko organisé woon fee ca Turquie ñu di wax Habitat 2 Touba bokkoon na ci dëkk yi ñu tànnoon def ko ville modèle ci anamu ni mu doon màggee ci màggin woo xam ne wu ñu nos la loolu nekkoon na lu jafe ci ci àdduna moo taxoon mu bokk ci modèle yi nga xam ne yu ñu war a roy la yuñ yuñ yuñ yuñ mat yuñ mata jàngat la xool ni ñuy dunde ak ni ñu ko nase ak ni ñu fi dëkkee ngir yeneen dëkk man ko roy kon mën nañoo jàpp ne Touba jamono ji ñuy wax ak yéen asima ruuxiya la mooy capital boo xam ne ci wàllu diine dëkk bu ñuy dellu la dëkk boo xam ne li koy li fi li fiy ñëw ci at ëpp na ay millions ay millions yi doomu mën nañu ci Afrique mën nañ koo jàpp dëkk yi fi dëkku diine bokk na ci dëkk diine yi fi gën a mag buñ mooy dëkku diine bi fi gën a rëy mu doon dëkk boo xam ne jaamu yàlla ak jar moo ñoo tax boroom sanc ko sanc ko ci gisinu lislaam ak tëralinu lislaam moo tax li fi nekk ci jàngukaayu lislaam ci biir tuuba jafe na nga dem ci beneen dëkk ci senegal fekk fa lu toll noonu ci jàngukaayu lislaam moo xam ay daaray alquran la moo xam daaray xam-xam la moo xam njàng mu yees mi la muy école arabo islamique yi nga xam ne moo fi nekk kon loolu ci yi nga xam ne yi dëkk bi ràññeekoo la bokk waaye mu doon dëkk boo xam ne ci wàllu màgg ci démographie mooy nit ñi fi dëkk yi gën a gaawu màgg la ci mbooloo mi fi dëgg loolu nag boroom xam-xam yi xam nañ ne doole la xam nañ ne atu la ci su fekkee ne waajal nañ mbooloo mi ci niñ leen war a waajale ñu bari dañ doon jàpp ne ak màgg loolu dañ ko war a limité xam nga ne bari na réew yu mag yi dañuy ñëw ci suñu réew yi di ñu digal ñu fexe ba wàññi population bi wala ñu limité ko waaye xam nañ ne population bu bari suñ leen waajalee niñ leen war a waajale loolu doole la loolu force la boo xam ne bu am solo la ndax gis nañ réew yi gën a bari mbooloo ci jamono ji ñu toll bokk nañ ci réew yi ëpp doole ci àdduna bi lu ci baree bari nag ñi nga xam ne ñoo bëgg a ñëw yilif ñu jël suñuy koom-koom ñooy fexe ba gëmloo ñu ne li fi nekk ci ay ressources su màgg gi gaawee duñ ko mën a du leen mën du leen du leen mën a doy ki nga xam ne moom day bëgg li nga moom mu di ko jël su sañoon yow sag màgg day day daytalu day limité wu ba moom waxtu wu nekk li nga am ci ay koom-koom mu mën koo jël di ko jariñoo loolu yëpp lu mat a bàyyi xel la ci campagne yi ñuy faral di def ngir bëgg ñu gën a wàññi waaye booloo buñ leen waajalee defar leen doole la joo xam ne du mën a jariñ am réew la ca Touba wàll googu ku ne xam na ne ràññiku na ci lool ci yokk kii bi nga xam ne mi ngi koy yokk nga xam ne bu ñu ko saytoo ni ñu ko war a saytu dana doon lu ama am solo ci ëllëgu réew bi ci ëllëgu Afrique ci boppam waaye ku ne xam na ne capital économique la ci wàllu koom-koom dëkk la boo xam ne bu mën a wommat développement Sénégal la jëme ko kanam ndax yàlla fi mu ko fi mu ko fi mu sanc fi fi fi fi mu fi mu placé wu nga xam ne mën nga ne daanaka xaw a nekk ci digg réew mi yomba dem fenn fu nekk yoon wu mag man faa jóge mën a dem ci dëkk yu baree bari loolu dëkk bu ni mel nga xam ne tey lépp loo xam ne luy koom-koom la mën na fi mën naa nekk centre bi ci réew mi loolu ci yi nga xam ne Touba euh, ràññikoo na ko la bokk mu am maanaam jàpp ndalit mën a màgg maanaam mën a am màgg ci wel bu nekk daanaka mënoo ne am na géej goo xam ne moo koy wala ay doj yoo xam ne moo koy gàllankoor ak màggam kon dëkk la boo xam ne mën nay màgg di dem loolu it ci li li nga xam ne Touba ràññikoo na ko la bopp waaye mu bokk ci li nga xam ne ràññikoo na ko ci jamono ji ñu toll mooy li jafe ci dëkk mooy am benn kilifteef am benn baat boo xam ne tey lu mu digle ñépp jëm ca loola lu mu tere ñu bàyyi ko loola lu Tuubaa ràññikoo la tey lu ama am solo ci ñu ànd bëgg sottal am ay jubluwaay ci àdduna bëgg koo sottal am ak kilifteef am baat boo xam ne ca la ñuy nosu loolu lu am solo la ci ca Tuubaa suñu borom jox na ko loolu comme ni ma ko waxee woon mu doon dëkk boo xam ne ni ñu ko aménagé mën naa jàppandal ak màggam mën naa jàppandal bu ñu ko nosee nit ñi dund fi dund goo xam ne bu mucc ayib lay doon ba la borom bëggoon mooy ñu man fee nekk ci condition yoo xam ne day tax ñu mën a jaamu yàlla ni mu ko doon ñaane rek man fee am faw fawzey ni mooy texe tey ak texeg texeg ëllëg loolu nga xam ne ay muqawimaat la mooy ay potentialité la yoo xam ne Touba am na ko teewul nag moo am ay jafe-jafe jafe-jafe yoo xam ne ci wàll yu bare bari euh, am na bokk mu ko waxtaanee sëñ Cheikh Mbacke fan yi ci ginnaaw ci daari bi minan euh, ak i défi yoo xam ne mi ngi ci kanamam yooyu du mën ñàkk ci dunduk aw askan waxtu wu nekk dana am yu nekk ci seen kanam yoo xam ne dañuy góor-góorlu ngir jéggi ko ba fañ war a àgg ñu àgg fa waaye jàpp naa ne li nga xam ne Touba am na ko ci ay atu moo gën a bari fuuf ci gàllankoor yi kon mën nañoo fexe ba gàllankoor yooyu ñu saafara ko ba Tuubaa ni ko boroom bëggee moo amee ko noonu mooy ñu man fee nekk nekkin woo xam ne ku fi nekk da ngay am texek àdduna ak texek àllaaxira xëy na gàllankoor yooyee eh, la ca jëm ci wàllu njàng ak njàngale mën nañ caa taxaw tuuti mooy système éducatif bi nga xam ne moo nekk fii ci dëkk bi xëy na am na wàllu yoo xam ne war yu ñu war a mën a joyanti la ci wàllu googu doonte am na jéego yu am solo yoo xam ne def nañ ko ci ay jàngukaay yu fi nekk ak jeexit yi nga xam ne jàngukaay yooyu mu ngi ko mi ngi koy am ci dëkk bi waaye teewul nag am na wàll yoo xam ne buñ ko xoolee wares na ko mën a gën a joyanti mooy buñ seetloo ci jàng mi fi nekk li ñuy wax tawazun maanaam équilibre bi war a am ak tolloo gi war a am ci nit ñuy fonke njàngum diine ñu fonke ko waajal nit ñi ci yeneen xam-xam yi nga xam ne dana gën a tax ñu mën a liggéey mën a am ay métier loolu wàll googu fa muy formation boobu nga xam ne war ci wàllu professionnel la jëm xëy na ni ñu fonke njàngum diine buñ ci boolee njàngum meneen mi loolu dina tax mu njàng mi gën a am taxaw ci ñaari tànk te loolu nag buñ ko seetloo dëgg mooy gis-gisu Sëriñ Tuubaa radiyallaahu anhu ci boole jàng ak liggéey te buñ nee liggéey bépp liggéey boo xam ne dafa tege ci xam-xam tege ci formation mooy ëpp njariñ gën a mën a jariñ ka koy def gën a mën a jariñ nit ñi ci liggéey boo xam nit ki moo góor góorgóorlu boppam waaye amu ca formation kon nit ñi bëgg gi ñu bëgg liggéey suñ ci boolee di leen former ba ñuy am ay qualification wóor loolu dina doon lu ama am solo ci njàngum njàngum dëkk bi ndax di tax na fi ne ñu baree bari danañ jàng ba noppi ngir ñu liggéey dana wa dana laaj beneen waajtaay wala beneen coono boo xam ne danañ ko defe ngir mën a am luñ suturlawoo ginnaaw buñ defee ay at ci njàng mi génn ci njàng mi war a mën a daal di liggéey waaye diggante boobu dina am lu mu laaj ci ay waajtaay ci beneen coono boo xam ne dinañ ko def waaye ñu seetlu ci suñu njàng mi li ñuy wax bahs ilmi muy recherche scientifique gëstu bu xóot boo xam ne dina mën a indil li ñuy suñuy jafe-jafe dinañ ko mën a gëstu gëstu li koy saafara loolu gëstu boobu xaw naa néew suñu système bi daanaka dañuy jàng ay xam waaye nag la Sëriñ Tuubaa waxoon saalisu al ihyaau dafa mel ne xaw nañ cee xaw naa woyof lool niñ ci war a taxawe des ndax suñ jafe-jafe daanaka ay jàmbur ñooy ñëw di ko di ko gëstul waaye suñ système bi dafa mel ne xaw naa desee matale ci wàllu googu maanaam mooy àgg ci ñuy mën a def ay gëstu yu xóot ci suñu suñu dund ak suñuy jafe-jafe man cee wut ay saafara leneen li nga xam ne dañ ko seetlu ji njàng mi fi nekk it mooy lu ci ëpp dañ koy jëggaane ci biti programme yi fi nekk moo xam ci tubaab la moo xam ci arab la lu ci baree bari dafa am loo xam dañ koy jëggaane ci biti ca ñu am système boo mën a am système boo xam ne dañ koy tabax ci suñu njàngalem cosaan muy turaas bi nga xam ne patrimoine bi nga xam ne njàngale bi nga xam ne Sëriñ Tuubaa radiyallaahu anhu bàyyi na ko fi muy njàngale moo xam ne gis nañ jeexit ji gis nañ am njariñ bi suñ jàngukaay yi dese nañ ko tabax ci gisinu ak njàngaleem sëriñ bi ci ñi nga xam ne ni ni lañ war a ni la tëgge woon daara yi tarbiya ak ni mu doon yare loolu jàpp naa ne lu bari ci suñu njàng dañ koy dañ koy jéggaane ca man koo tabax ci njàngaleem sëriñ bi ak gisinu sëriñ bi mu amit jafe-jafe boo xam ne am na ci suñu biir njàng mooy làkk yi dafa xaw a nekk ay barrière maanaam da nga gis koo xam ne euh, fu ne ma waroon na faa mën a ci wàllu njàng waaye la aw làkk dana ko gàllankoor ba euh, fa war a àgg du àgg kon yooyu ay jafe la yoo xam ne nekk na ci suñu système yi te mu mel ne ah ñi ngi ci def ay jéego jàngukaay yu bari ñu xoolee ku mel ne sëriñ Amor Cheikh Mahamadou Moutada gis nañ wàllu formation professionnelle jéego yu mu ci séqi ñu lu am solo nga xam ne dana jubbanti lu baree bari ci yi ñu doon wax nii kon buñ nekkee ci contexte mel noonu bu mu jàmmaa ubbee muy daara jii nga xam ne Cheikh wax na ni lim ëmb bari na lool mën nañoo jàpp ne mën naa nekk bokk ci saafara yi nga xam ne dina saafara suñu jafe-jafe yi nga xam ne moom la njàng mi ak yar bi am ci dëkk bi ak ci réew mi kon foofu lañuy ñëwee rek ci euh, li nga xam ne mooy rol bi nga xam ne euh, daara ji mën na koo am ci ëllëgu dëkk bi di Touba muy dawrul mu jàmma fi mustaqbali madinati Touba ëllëg nag xëy na du lu neex a waxtaane ndax waaye nag ci tey ngay mën a sukkandiku ngir mën a xool xëy na mën a nattale ne ëllëg dana mel nii wala dana mel na ëllëgu Tuubaa nag moom jëfewut ndax sëriñ bi ci boppam moo ñaan ni mu ko bëggee ca mu leer nañu sëriñ bi li mu ñaan ni mu ko ñaane boroomam dana ko amee noonu day laaj rek ñi nga xam ne ñooy ñi ko war a taxawee war a koo saytu ñu xam ko waaye jël matukaay yi tax ñu àgg foofu ëllëgu tubaa mooy ni ko sëriñ bi bëggee mooy mu nekk dëkk boo xam ne lépp luy condition yuy tax nit man fee dund dund gu teey nekk fi waaye mu nekk dëkk boo xam ne dëkku xam lay doon dëkkub jaamu yàlla lay doon dëkkub liggéey lay doon loolu ëllëgu Touba mu ne su cee mu nekk dëkkub diine mu nekk dëkkub xam mu nekk dëkkub liggéey liggéey lu lew waaye nag mu nekk dëkk boo xam ne lépp luy matukaay yuy tax dund gi teey muy ay conditions matérielles am fi ndax noonu la ko fi sëñ bi ñaane sëñ bi bu dee ñaan ndox ñu doy su dee ñaan lekk gi ak naan gi doy ba noppi teey bu dee ñaan ñu am sécurité bu dee ñaan yiw fu nekk xéewal di fa jóge jëm si ci dëkk bi loolu kon mi ngi day mel ne bëgg na suñu dund tey teey maanaam ñu dund dund ku texe moo tax mat Matlabul ni mu tudde ko càkkutee fi ñaari texe yi bu ne Matlabul Fawzayni nag kon mooy texeg tey texeg ëllëg ca texeg tey nag mooy li la fi tax a nekk nga man ko di ko def ni nga ko war a defee ba noppi am dund gu teey mooy di jaamu yàlla jaamu yàlla bu sell amul njub am jikko yu rafet waaye li nga xam ne moom la sa dund laaj lépp nga man koo matal matal dëkk yu mucc ayib la ngay lekk mucc ayib lépp loo xam ne li la wër la nga nekk ci fu sell foo xam ne day set lépp luy ay musiba ak i balaa nga mucc ca ndax boo xoolee ni muy ñaan ci Matlabul Fawzayni dafay ñaan ñoddi lépp luy yiw ak njariñ waaye noonu lay ñaane mucc ci lépp loo xam ne lor la moo xam fu lor ji mën a jóge sëriñ bi bi ngi ñaan suñu borom musal ci dëkkam bi ca lor joojee loolu nag saa bu ko nit amee mooy mucc ñi ci mboolem xeeti lor yi ci lépp luy xéewal mi ngi mi ngi ci loxoom ba noppi mu nekk ci ak jub ak jaamu yàlla kooka mu ngi ci texeeg àdduna ci bu ëllëgee ma ngi ca yaakaar texeeg àllaaxira loo tax muy wax minanun mu ajjala boo xam ne jaalibatun li minanin mu ajjala xéewal yu teew yoo xam ne danay indil xéewal yi ëllëg kon ëllëgu Tuuba moom ci suura boobu muy gisin woowu rek lañ ko mën a gis mooy ni ko sëriñ bi bëgge ba binde ko noonu ba ñaane ko noonu mu nekkoon dëkk boo xam ne dëkk mucc la dëkkub jëm kanam la dëkkub jaamu yàlla la waaye dëkkub xéewal lay doon loolu nag bu ñu xoolee taxawaay bi nga xam ne mu jàmmaa bi mën na ko cee am ci ëllëg googu mën nañ koo xool ci ñetti wàll wàll bu njëkk gi mooy jëm ci wàllu yar ak jàngale ak formé loolu dafa bokk yi nga xam ne dana tax lii sëriñ bi bëgg sabab yi tax mu mën a am la ca sabab yooyu nag mu jàmma bi am na ci taxawaay bu mu ci mën a taxaw bokk na ca mooy mu mu mu barab la boo xam ne dañ fay mën a yare yarub diine yar boo xam ne day tegu ci gis-gisu sëriñ bi ak njàngaleem sëriñ bi rawatina ñoo xam ne nag ëllëg dañoo war a yor responsabilité ñu di leen fa yar ci seenu ndaw bu ñu amee juróom-benni at jëm juróom-ñaar nga xam ne ñooy jiitu ci ñoom defar leen defar goo xam ne ñi sëriñ bi bëgg ku ni mel ab jullit nekkub taalibi am pas-pas bu dëgër am jikko yu rafet waaye am xam-xam boo xam ne bu am njariñ la loolu jam mu jamaa bi buñ ko xoolee niñ ko tërale ak niñ fiy jëlee loolu lépp dañ ko caa bàyyi xel du rek barab boo xam ne dañ fay jàngal nit ñi seen di defar seen xel rekk di leen sol xam-xam wala di leen mokkalloo waaye barab la boo xam ne dañuy yar gone yi di leen tàggat di defar seeni jikko di leen di di di leen tàggat ci jaamu yàlla di leen saytu ci lépp loo xam ne dana tax ëllëg buñ yoree responsabilité xam ñooy ñan doon ñu jub ñoo xam ne ëllëg dañuy mën a dañuy mën a jubal waaye mu jamaa bi bokk na ci lim mën a indi ci wàllu jàng ak jàngale mooy barabu jàngukaay yi nekk ci biir dëkk bi wala sax mën na mën mën naa génn dëkk bi barab yooyu yëpp nga xam ne léeg-léeg seen programme yi ñuy jàngale du mat nam war a mate léeg-léeg duñ bokkale lu ñuy jàngale léeg-léeg bari na bi jàngukaay yoo xam ne lañuy jàngale amuñu sax programme waaye ay téere rek la ñuy am di jàngale téere yooyu ci téere yi mën naa am feneen lañ koy jële fu mu jàppandee ci ñoom rek loolu mu jamaa bi waajal na liggéey boo xam ne ay programme lay doon yoo xam ne yu ñu saytu la ba li ci war a nekk ci jàngaleem sëriñ bi li ci war a nekk ci yarub lislaam nekk ci ñu man koo maasale ci jàngukaay yi ci dëkk bi yépp man koo jëfandikoo ñun jàngukaay yi nga xam ne sax nekkuñu ci dëkk bi te bëgg koo jëfandikoo danañ ko mën a jëfandikoo loola dina dindi li ñuy tudde baa ak ñàkk nosu gi nekk ci programme yi nga xam ne moo nekk ci da jàngukaay yu baree bari yoo xam ne dañuy jekk-jekk rek ubbi di jàngale yor yar ndaw ñi ñu bari nekk fa te boo demee di saytu di xool la ñu jàngale daanaka la jàngale doo mën a xam fan fam la tàmbalee ak fan la yem ak ci lan la tënk kon amal programme yoo xam ne dañ koy day dëppoo dëkk bi ca ñi nga xam ne ñoo yar jàngukaayu dëkk bi di jàngukaay yuñ xam ñoo ko àndoon liggéey ko loolu bokk na ci li nga xam ne mu jamaa bi waajal na ko nga xam ne dañoo dem am ab direction ci biir mu jamaa bi direction boo xam ne mooy saytu lu jëm ci jàngukaay yi nga xam ne moo nekk ci dëkk bi loolu am na ñu fa nekk ñoo xam ne seen xam-xam ci wàll googu la màcc ñuy saytu programme yooyu waaye ñooñu jàngukaay bi bokk na ci liggéeyam yemul rek ci biir daara ji waaye di fexe bay encadrer jàngukaay yi nekk ci dëkk bi di leen jàppale ci di leen forme ci di leen jàppale ci di saytu nañ koy yare nañ koy yore ak di xool ba xam ñi ngi dëppoo ay norme wala duñ dëpp dëppoo ñoom norme yi ñu fexe ba jàppale leen ba école jàngukaay yi fi nekk yépp mën a tënk ci ay norme yu leer loolu it ñu ànd koog autorités yi nga xam ne ñooy yor am njàng ak njàngale ca état bi samp leen ci département bi ndax am na ci loo xam ne ci ñoom lay dellu waaye nag lañ war a jàngale ak nañ ko war a jàngale ak nam war a dëppoog njàngale bi sëriñ bi nam war a dëppook dëkkub Touba ak jagleeg dëkkub Touba loola moom mu jàmma bi am na liggéey yu am solo yoo xam ne mi ngi ko ci liggéey li nga xam ne it mu jàmma bi dina ko indi ci jafe-jafe yi nga xam ne dana am ci suñu njàng mooy li ma waxoon léegi ci mooy am xawaajiz lugawiya mooy ay barrière loo xam ne barrière linguistique léeg-léeg dana am koo xam ne lam bëgg a jàng aw làkk dana tee mu mën koo jàng ku jàng arab am loo xam ne war na war naa xam beneen làkk doog koo mën a jàng ak koo xam ne war naa weneen langue la jàng la jàngoon tubaab wala leneen am lu mu bëgg a jàng ci diini langue dox diggam ak mu mën koo jàng mu jamaa bi waajal nañ fi jàngukaay boo xam ne day former nit ci aw làng ci anam gu gaaw loolu ci yiñ yiñ fi naan la bokk nga xam ne dana tax képp koo xam ne am na loo bëgg a jàng aw làkk teel a koo mën a jàng làkk woowu mën la caa waajal ci diggante bu gàtt ba nga mën a jàng loo bëgg gis nañ fii ñoo xam ne aw làkk rek moo leen gàllankoor waaye suñu borom jox na leen ci xereñte jox na leen ci xam-xam ñu fi ñu ñuy fent di di créer loo xam ne tey bu fekkoon ne ubbil lañ leen bunti ñu yaatal seen xam-xam ñu mën a jariñ askan wi la ñuy mën a doon ñu mën a jariñ réew mi lañuy doon ndax la leen suñu borom dénk ci xel ak ak xereñ waaye nag làkk rek moo leen di baare mooy nekk seen gàllankoor daara jii di mu jamaa bi mën naa fexe ba Tuubaa bunt boobu bu ubbi ci ay bunt yu yaatu yoo xam ne aw làkk dootu nekk gàllankoor ci nit ki lam bëgg a jàng waaye ci wàllu gëstu liñ fi waajal ci ay centre de recherche maanaam barab yoo xam ne dañ fay gëstoo ak bibliothèque boo xam ne mën nga ne lépp lu nit war a soxla ci wàllu gëstu dana la ci mën a jàppale dina fi man dana mën a jàppale jàngukaay yi ci dëkk bi ba li ci wàllu gëstu nga xam ne lu xawoon a néew doole la ci suñu système bi loolu moom jàng mu jamaa bi mën naa bokk ci li muy saafara ndax la fa nekk ci ay bibliothèque boo xam ne niñ ko waajale dana bokk ci bibliothèque yi gën a mag ci réew mi waaye yeneen bibliothèque yoo xam ne mu taxassisa la ndax boo demee la fa kër xasida yi la mu nar li muy liggéey ci wàllu xasida ak kër lañ fay waajalaat muy kër kër alquran yooyu yëpp ay barab la yoo xam ne dana mën a am taxawaay bu am solo bu mu taxaw ci ci ci dëkk bi ci jàppale nit ñi ci gëstu ci jàppale nit ñi ci yaatal seen xam-xam ba nga xam ne dootuñu soxlaa jëggaani leneen feneen wala bokk la ñuy jëggaane lu nekk dana fekk ñu am ci ab yóbbal boo xam ne bu doy sëkk lay doon kon loolu ci wàllu jàng ak jàngale taxawaay la boo xam ne mu jammaa bi mën na koo taxawee mu doon lu am solo ci ëllëgu dëkk bi ndax ku ne aw askan la ko yor mooy xam bu sell bu leer boo xam ne day yaatu ñu bari man caa man caa joti loolu nag mu jammaa bi dana ci am taxawaay bu am solo ñaareel bi ci lu jëm ci wàllu social lu jëm ci wàllu bokk culture mooy suñu cosaan ak suñuy aada ak li nga xam ne luñ baax la suñuy valeur nuñ koy fexe ba sàmm ko nuñ fexe ba tasaare ko nu ñuy fexe ba dundal ko loolu mu jamaa bi bàyyi na ko xel bu baax a baax a baax a baax ndax bokk na ci jubluwaay yi nga xam ne moom lañu rëddal mu jamaa bi mooy fexe ba sàmm suñu ndono muy njàngaleem lislaam mi nga xam ne moom lañu Sëriñ Tuubaa radiyallahu anhu bàyyeel yara ci bind ci liggéey ji mu doon loo xam ne lu amal njariñ àdduna la ñu war koo sàmm war koo dund war koo tasaare loolu ci taxawaayu mu jammaa bi ci sàmm ko ci tasaare ko ci jàppundal gëstukat yi ñu man cee amal ay gëstu ndax fi ne bari na ñoo xam ne bëgg nañoo gëstu ca bu ñu amoon ay moyens ak ku leen jàppale ñu gëstu danañ génne xam-xam bu am solo ñooñu dañuy mujj rek tayal dañuy mujj rek yitte jàpp leen ñu bàyyi gëstu ba ak lu jëm ci jàng jàngale nekk ci leneen waaye su ñu amee institut mu assasa bu mag a mag boo xam ne këru gëstukaay yu mag day nekk ca biir di jàppale ñu bëgg gëstu loolu dina doon bunt bu bu am solo boo xam ne. dana jàppale ñi toll ci gëstu war a mën a yaatal xam-xam war a mën a gëstu ci suñ ndono man man cee génne njariñ yoo xam ne day tasaaroo ci àdduna bi bokk na ci li nga xam ne mu jamaa bi dina ko taxawee ci suñu wàllu ndono mooy fexe ba di amal ay conférence yoo xam ne ci biir réew mi ak yoo xam ne day day day génn réew mi ay boroomi xam-xam fu ne ñu jóge fa indi seen xam-xam waaye ñu wan leen li nga xam ne mooy njàngaleem Sëriñ Tuuba ndax nit ki bala nga koo mën a wan li nga am da ngay ubbi buntub weccoo buntub gëstu buntub xalaat ci li ñuy wax ay conférence internationale loolu ay université faw ñu di ko taxawal ngir di ci woo ñeneen ci la ñuy mën a jaare nag ba tasaare njàngaleem Sëriñ Tuuba ba tasaare li nga xam ne mooy suñu turaas ba mën a àdduna bi mën koo xam ba man cee ba man cee jariñ loolu euh, bokk na ci li nga xam ne mu jamaa bi ay taxawaayam dana ko dana ci bokk waaye fexe ba ñu toll ci jàng war a jàng toll ci gëstu amoon ay jafe-jafe ba nga xam ne ku ci génnul dem fu sori doo mën a jàng loolu bunt boobu dana bokk ci di koy saafara ndax fa lilaay alhamdu at yu néew ci ginnaaw ku ma saa am baccalauréat boo bëggee yaatal sa xam-xam foog nga génn léegi nag loolu am nag soppiku depuis mille neuf cent deux mille bi nga xamee ne tàmbali nañoo am bac boo xam ne état bi moo koy organiser ñii am bac boobu ñu ngi mën nañoo dem université Anta Diop ginnaaw bi nga xamee ne it université Ahmadou Bamba ubbi na ñu baree bari man faa dem jàng loolu lu jiitu loolu jafe-jafe yu amoon na loolu nag buntu boobu buntu boobu nag ñu ubbi mu jamaat bu ñëwee dina ko gën a dooleel ñu gën a renforcer dana nekk foo xam ne nit ki war naa mën a jànge Tuubaa gii ba am fi diplôme yi mu bëgg am yépp da soo soxla muy génn ku ne xam nga génn bi li ci nekkoon ci ay coona li ci nekk ci ay jafe-jafe ak li ci nekk ci ay risque ak maanaam jeexital yoo xam ne yu mën a jeexital yooyu lore yu mën a def ci nit ki donte nag loola nit mën na caa mucc waaye ay risques yu bari nekkoon na ca kon bu ñu demee ba bunt boobu wàññiku lool ku bëgg a jàng mën a jàng loolu dina am solo lool ci ëllëgu réew mi ndax bari na ñoo xam ne suñu réew yu ndaw ñii dañuy fexe ba réew yu mag yi dañuy fexe ba fa xel ya gën a ñaw ñu fexe ba di leen di jël di leen yóbbu buñ la jàngalee ba noppi nga des fa di leen liggéeyal bari na daanaka téeméer yu génn jàngi mën nga ne leen léeg juróom fukk ba wala juróom benn fukk ba fañ jànge fa la ñuy des fa la ñuy liggéey bu waxee di amal njariñ société yooyu waaye fi nga xam ne fi lañ bokk dootuñu leen amalati njariñ lu may xëy ne ñu yónnee dara buñ liggéeyee dara yónnee leen waaye xam-xam ba moom fa réew yooyee ñu nekk fa lañ koy ñoom lay jariñ kon jàpp naa am jàngukaay boo xam ne gëstukaay lay doon man cee jàng ba am diplôme yu gën a kawe wëlbatiku man koo liggéeyawaat ci réew mi loolu dina jëmale kanam bu baax a baax dina jëmale kanam bu baax euh, dëkk bi waaye dina jëmale kanam bu baax a baax réew mi waaye li nga xam ne nag mooy suñu cosaan ci wàllu njàngum alquran ci wàllu njàngum xam-xam loolu it mu jamaa bi dafay da koy sàmm ndax daara ji dañoo bëgg mu nekk daara joo xam ne dañ fi mokkal alquran niñ ko ni niñ ko baaxoo mokkale ci anam bu sell waaye gën koo rafetal di beq di bind kaamil li nga xam ne cosaan la ci suñu daara loolu bokk na ci li nga xam ne bëgg nañ koo sàmm waaye jàngum xam-xamum cosaan li nga xam ne moo nekk ci njàngum majalis yi ñu daan jàng dañuy fexe ba loolu ñu téye ko sàmm ko doon ko doonte nag danañ ko gën a développé ba nga xam ne am na yu amutoon ci njàngum xam-xam moomu njàngum majalis moomu ca mu baax ci njàng mi ñu dugal ko ci moo xam ci anam nañ koy jàngalee la ci anam ay anchita maanaam ay yuñ daawul def muy ay nat wala yu di ñu ni demee daawul am ñu dugal ko ci wala loo xam ne daawuñ ko jàng cañ soxla ko ñu di ko ci jàngale kon anam yooyu yëpp waaye té téewul sàmm cosaan bi téye ko ni nga xamee ne réew yi nga xam ne am nañ njàng mu mel noonu dañ koy sàmm dañ koy téye boo demee Maroc seen jàng mu cosaan bi dañ koy téye tudde ko at taalimun atiq nga xam ne wutal nañ ko buñ ko tabaxalee ay école ak yépp it waaye teewul nañ ko daan jàng ci cosaan dañ koy sàmm la ñuy jàng war koo mokkal bi di ko mokkal loolu yépp dañ koo bàyyi boo demee Mauritanie gii am nañ at-taalimul asli nga xam ne mooy njàngum mahadara ma dañoo fexe ba di ko téye di ko sàmm boo demee réew mu seen xawsaat ilmiya mooy njàngum cosaan kon fii it suñ majaalis yi nga xam ne mooy suñ njàngum cosaan mu jàmmaam bi daf ko bëgg sàmm bëgg koo jëme kanam bëgg ko fexe ba nga xam ne ku fay jàng di nga mën a am ay mën a avancé wutal ko ay niveau man mu mën a am ay diplôme yoo xam ne di nga mën a xam lu mu tollool boo bëggoon a wéyal sam jàng loolu ci li nga xam ne mu jamaam bi waajal na ko la bopp waaye jamaam bi dina doon loo xam ne dina encouragé ñi nga xam dañuy ay bindkat lañ ay taalifkat lañ ndax xam nga suñu dëkk bi suñu borom def na ci ay ñoo xam ne xel bi mu leen jox ak xereñ ak xam-xam bi mu leen jox waaye nag amuñu lu leen jàppale leneen léeg gis koo xam ne bu la ubbiloon machine am lam taalif wala lam bind ci ay woy wala lam yor ci ay diiwaan waaye yooyu yëpp daanaka du génn ndax jum amul moyen bu mu ko génnee wala amul bu amul fu mu ko tasaaree mu jamaat bokk na ci li ñu waajal yooyu yëpp mën a jàppale ñi toll ci bind toll ci taalif toll ci gëstu jàpp ci seen loxo fexe ba euh, encouragé leen ba li war a mën a bind war koo mën a génne ñu di ko génne di ko bind bu ñëwee ci wàllu développement xëy na at tanmiya loolu moom euh, li ci taxawaay bi nga xam ne mu jàmmaa bi mën na koo am lu baree bari la xam naa dañ cay junj rek ne bokk na ci li gën a am solo ci wàllu koom-koom ñu am ay gëstu barab yi gëstukaay yoo xam dinañuy def ay gëstu ci ci ñu toll ak lan mooy suñuy aajo ak suñu aajo yooyu naka la ñuy def ba saafara loolu ngir ñu jëm kanam fokk ñu mën koo defal suñu bopp ndax lu ci baree bari ñeneen ñooy ñëw indi financement wala ñooy indi seeni financement jël ñoo xam ne ñoo ñuy gëstu ñun maanaam ñun du fekk nekkul ne ñun ñooy gëstu suñu bopp xool ngir xam suñuy aajo ngir mën koo faj ñu ci baree bari bu ñëwee dina gëstu yow ñoom ngir gën laa mën a xam ngir gën a mën a xam fu ñu jaar ba jariñoo la ëllëg daanaka moo mooy tax ñuy dépenser lu baree bari pour amal ay gëstu ci suñu dëkk yi ak suñu réew yi waaw waaye ñun suñu bopp ñu dem ba am amal suñu bopp ay moyen amal suñu bopp xam-xam amal suñu bopp ak xereñe loolu lu mënta ñàkk la suñ bëggee jëm kanam suñu bëggee développer suñu économie suñ bëggee développer jëmale kanam suñu koom-koom faw ñu dem ba àgg ci di gëstul suñu bopp suñuy aajo di xool lan mooy mën a saafara suñuy suñu aajo yooyu waaye wokk na ci li nga xam ne ci wàllu koom-koom mu jàmma mën na koo taxawee mooy waajal ay cadre former ay cadre yoo xam ne dañuy am man-man amu xereñe mën a développer suñ bopp suñu réew mii ndax suñu réew mii manqué wuñ koom-koom waaye jàpp nañ ne suñ koom-koom yi yeneen boroomi xam-xam ñooy jóge ci yeneen réew ñëw ngir di ko exploiter te ñun fokk ñu am waajal ay nit ñoo xam ne ñooy mën a waa maanaam jariñoo li nga xam ne suñ borom def na ko ci réew mi ci koom-koom te loolu waajal ay ay ay ay cadre loolu lu mënta ñàkk la te boo xoolee filière yi nekk ci biir mu jamaa bi waajal nañ ci domaine bu nekk ci wàllu mbay wàllu sàmm wàllu métier yi wàllu xam-xam yi nga xam ne dana tax ñu mën a jariñoo koom-koom bi fi yàlla def loolu bokk na ci lu lu waajal ay nit yu ko mën a taxawee sóoraale nañ ko ci biir jàngukaay boobu waaye dana tax bokk na ci li njariñam mooy ñi nga xam ne dañoo waroon a mën a am jafe-jafe ci liggéey ñu man leen a former ci diir bu gàtt ñu mën a am ay métier ndax centre de formation professionnelle bi nga xam ne waajanaa la ko ci biir nga xam ne day jàngale ay métier nga xam ne ñetti weer wala juróom-benni weer wala nag mën nañ cee waajal ndaw ñoo xam ne xëy na ñi nga am loon am jafe-jafe pour am lu ñu liggéeyee ca loolu suñ barab yi dafa bari ñoo xam ne euh, buñ jàngee xam jàng alquran danañ dañuy bëgg a dem Dakaaru liggéey wala ñu bëgg dem feneen liggéey te buñ leen waajalee ci ay métier yu am njariñ danañ ci daal di mën a am liggéey man caa man caa jariñ ca loolu lu am solo lay doon ci xeex li nga xam ne mooy li ñuy wax chômage mooy ku war a liggéey te amoo loo liggéey di wut liggéey te amoo ko ñu jàpp ñu ñu formé la ci métier boo xam ne danga nga daal di mën a liggéey loolu lu am solo la loo xam ne bàyyi nañ ko xel ci biir mu jàmmaam waaye ku ne xam na ni fii it li ñuy wax secteur informel mooy ñi nga xam ne ñi ngi liggéey ci anam goo xam ne nekkuñ ci ay entreprise waaye ñoo yor seen liggéey bopp te ñu ci bare bari see dañuy góor góorlu rek ba mënal seen bopp métier nekk ca di ca jariñu di ca tedd ñu bare bari ci ñooñu nga xam ne amuñu woon formation mën nañ leen a fekk ci seen métier ya former leen mën nañoo fekk ci seen métier ya organiser leen jóge ñu jóge ci informel dem ci formel loolu ci wàllu waajal ci wàllu former ci wàllu defar loolu bokk na ci li nga xam ne mu jàmmaa bi dina ci am taxawaay kon mën nañoo wax ne daal euh, lii tax li sëriñ bi bëgg ci ëllëg dëkk bi mooy mu nekk dëkkub xam-xam dëkkub jaamu yàlla dëkkub liggéey dëkkub jikko yu rafet loolu mu jàmmaa bi bokk na ci liy tax loola ñu ni ko sëriñ bi bëggee loola mën a am ndax niñ koy faral di waxee sëriñ bi lim ñaan moom dañuy xam ne suñu borom subhanahu wa taala defal na ko ko li des mooy ñun ñi war a taxaw fexe ba bokk ci ñiy gàttadu ñaan googu ñu jaar ci yoon bi nga xam ne moo koy maye ndax suñu borom lenn lu nekk da ko wutal ay sabab ñu da koy wutal ay sabab sabab yi nag mooy jaar ci yoon yi moo tax sëriñ bi da ngay gis ñaan di ñaan loo xam ne lay ñaanaale lay tax loola mën a am kon loolu mooy sabab yi dañ cee war a sabablu te mu jàmmaa bi bokk na ci liy ubbi ay bunt ci dëkk bi li sëriñ bi bëgg mu man koo am kon mën nañoo wax daal ci bu ñuy ci ci ci ci ci daaneel rek ware ne dëkk bi ëllëgam mu jamaa bi li nga xam ne moom lañuy ñuy séentu ci moom bu àndeek ñim fi fekk ci ay jàngukaay ci ay barabu yare barabu jàngale mën naa tax Touba gën a nekk barab boo xam ne li ñuy wax centre de rayonement maanaam barab boo xam ne ak leeru xam-xam dafay jollee di tasaaroo ci àdduna bi loolu incha allah Touba dina ko doon am na ku bind ab téere bu yàggu sax si Cheikh Bamba téere bu mujj bi maa ngi koy wax lu mel noonu ne Touba dëkku dëkk la boo xam ne dëkku rayonnement la ci wàllu xam-xam barab la boo xam ne euh, dajewukaay la dajewukaayu xam-xam yoo xam ne dafa sukkandiku ci njàngaleem Serigne Touba mooy nag projet bii di complexe bi. mën naa nekk centre boo xam ne ab delluwaay la boo xam ne day boole forme formation boo xam ne day sàmm suñuy cosaan waaye day ubbiku fi jamono toll ci jamono indiku ci xam-xam bu boobaa kon lee nga xam ne Tuubaa doonoon na ko mu jamaa bi day ñëw gën koo dooleel ñaareel bi mooy dëkk bi nekk gim nekk pôle économique liggéeyu mu jamaa bi ak jàngukaay yi mel ne moom mën nañ koo gën a dooleel ba nga xam ne Touba léegi ci dëkk yi économie yi gën a mag lay bokk ci réew mi ak ci sous région bi man ba ci ci Afrique waaye mën naa nekk it gën a nekk bokk ndax yi may wax yépp mën nañu Touba am na wàccuwaay boobu waaye li koy gën a dooleel ci lay bokk mooy mu nekk barab boo xam ne dafay am dafay mën a jeexital ci àdduna bi ci wàllu diine ci wàllu xalaat ci wàllu xam-xam ba monde islamique jafe-jafe yi nga xam ne am nañ ko Touba mën naa bokk ci dëkk yi nga xam ne lay saafara jafe-jafe yooyu mën naa tukkee ci dëkk bi ndax eh, boroom lim fàggu ak potentialité yi nekk ci dëkk bi ci en tant que dëkkub lislaam bokk ci dëkk lislaam yi gën a mag mën naa bokk ci yi nga xam ne mën naa jariñ lislaam bu baax a baax ci wàllu wazn bi nga xam ne am na ko mooy pois bi nga xam ne am na ko ba tax fu àdduna bi toll fu jafe-jafe mën a am ci biir àdduna bi Tuubaa mën naa bokk ci lay saafara jafe-jafe yooyu kon daal xam naa ne li ñuy def mooy euh, tëjee ñaan rek ñaan suñu borom subhaanahu wa taala li nga xam ne moom la Cheikh Mouhamadou Mountakha yéene lépp suñu borom yeggale ko li nga xam ne moom la ñuy séentu ci taxawaay boo xam ne mu jàmma bi mën na koo taxawee suñu boroom def mu taxawe loola ba taxawe lu ko weesu ñi nga xam ne ñoom la sëriñ bi jiital wóolu leen ci suñu borom defal leen ci tawféex ba nañ ko war a saytoo ñu saytoo ko ci anam goo xam ne liñ ci bëgg dinañ ko am loolu daal lañ doon daaneele di ñaan suñu borom subhaanahu wa taala mu nangul ñu suñuy koor jéggal ñu suñuy bàkkaar ci lépp loo xam ne njuumte mu jéggal ñu ko lépp luy njariñ mu tasaare ko ci àdduna bi wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu waaleykum salaam wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu docteur Serigne Sam Bousso eh, ñu ngi sant bu baax a baax di la jaajëfal waxtaan wi jëlut waxtu wu gudd lool waaye am na solo eh, liñ doon yaakaar xëy na doon xaar ak leeralam ak faram fàcceem mu jëm ci jàngat ëllëgu Tuubaa ginnaaw ubbiteeg mu jamono Cheikh Ahmadul Xadim waxtaan wi wax dëgg yàlla gën na koo leeral gën na ko yaatal duñu ko duñu guddal ci tënkal leen li ëpp solo ci li mu indi waaye lu gàtt gàtt danañ bàyyi xel ne sëriñ Saam delloo si na Tuuba démb taxaw bu baax ci jublu moo doon jublu sëriñ bi ci sos dëkk bi te la ca jiitu gën caa am solo mooy jaamu yàlla ak yar waaye itam taxawal dëkk boo xam ne ni doomu aadama mënta ñàkk ngir dund gi jàppandi dana ci am ginnaaw bi ñu ko sosee nag Sëñ Saam junj na ne dëkk bi jaar na ci ay étapes yu wuute yoo xam ne am na ci loo xam ne dunduk sëriñ bi la nekk fi di jàngale di yare waaye ginnaaw bi nag ngir xew-xew yooyu ñu xam ci dundam tax na dëkk bi demoon na ba daanaka gent waaye tam dund na ay jamonoy jafe-jafe yoo xam ne magi taalibe yi dund nañ ko fii bu ñëwee ci tey nag tey ji nga xam ne tuubaa am na geneen xar kanam mën nañoo jukki yenneti yëf yoo xam ne day wane ne Touba jooy tey jii wuti na ak tuubaay démb ba ci njëkk mooy asima ruuxiya gi mu wax nekk dëkk diine bu mag a mag waxuñu ci Sénégal waaye ci Afrique sowu jant gi ñu nekk waaye nekk ñaareelu dëkk senegal ci wàllu nit ñi fi nekk seenub lim ak seenub dayoo loolu nag di am lum laaj ci taxawal ay projet yoo xam ne dana leen war a former ba man leen a jàppale ba seen dund gën a jàkk ndax ku wax ay nit kooku potentialité la waaye nag potentialité dañ koy exploité bokk na ci anam yin ko mën a exploité mooy fexe bañ am formation fexe bañ am xarañ yin nga xam ne doomu aadama mën koo ñàkk am ngir dund dundam mën a mën a yéwén waaye itam tudd na ne jafe-jafe bi tolluwaay Touba tey ku ko tudd wax nag ay jafe-jafe ci ay wàll bokk na ci yooyee wàllum jàng ak jàngale nga xam ne naka jekk am na fi waaye ba tey rek formation bi ñu doon wax te doomu aadama yi mënuñu koo ñàkk gis nañ ne des na dëkk bi yaatu na lool ni ko dëkkee itam macha allah lim bi mu ngi gën a yokku waaye xarañ gi gi ñu war a xarañ ci wàllu métier gis nañ ne am na jafe-jafe foofu ñi mu amee jafe-jafe ci wàllu gëstu nga xam ne gëstu suñu cosaan gëstu li li nu moomal suñu bopp te xeet yu nekk dañoo dañ koo am man koo gëstu man koo dundal man koo yaatal ci àdduna bi yooyu itam gis nañ ne mën naa gën a jëm kanam kon mën nañ koo gën a taxaw muy ay jafe-jafe ci wàllu jàng ak jàngale mu mel ne nag foofu la amee solo foofu la daal di wëlbati ko moom sëñ Saam ñëw ci nag kon rôle bi nga xam ne moom la ñuy xaar moom la ñuy xalaat mu jëm Cheikh Ahmadul Khadim am ko ci yu domaine yu baree bari waaye ba jiitu mooy domaine formation ak jamono jamonoy gëstu yooyu nga xam ne moom la wax. waaye mu nekk ëllëg ju dal xel ndax dafa mel ni sëriñ tubaa xaada lahu laahu maxtaara lahu moom ñaan na ko ndeem ñaan na ko rek suñu xel day dal ci ne suñ borom nangul nag moo tax rafet nañ njort ne ëllëg ji xel mu dal lañ ci àndal buñ delloo ci tasawur boobu yi waaye nag ñun ñoo ko war a sabablu taxaw ci ngir mu sotti bu dee ci wàllu rôle yi ma doon wax ci wàllu jàngale jàng ak jàngale te mu jamax bi am ko euh, mën nañoo wax ne rôle yi mën nañ ko junj rek ci ay tomb te suñ indi ko bokk na ci amal ab génération boo xam ne danañ am xam-xam waaye danañ jub xam-xam moom mel na ne ñàkku fi mosu fay ñàkk waaye boroom xam-xam bu defaru amal ay génération yoo xam ne dinañ am xam-xam bi doomu aadama mënta ñàkk ci wàllu diine ci wàllu adduna waaye itam dinañ jub loolu bokk na ci yi nga xam ne ñu ngi koy xaar ci mu jamaa bi ak ni mu tëddee te ñu ciy rafet njort waaye itam lim fi fekkoon ci ay programme ci wàllu njàng ak njàngale nga xam ne euh, mi ngi fii waaye léeg-léeg am ci ak sooxe ak dese ngir xëy na programme yenn yi euh, cosaanowul fii waaye itam xëy na dese nañ ko lënkale ak njàngalem sëriñ bi tey jii ñu defaraat programme yooyu ba mu gën a nosu waaye gën koo lënkale ak njàngalem sëriñ bi nga xam ne loolu tax na ñu amal ci biir mu jamaa bi kër goo xam ne seen mission mooy jubbantiwaat njàng ak njàngale ci Touba gën koo organiser waaye itam wax na ko ci wàllu gëstu ci wàllu gëstu sunu cosaan li ñu moomal suñu bopp ñun ñoo ko mën a aar sàmm ko waaye ñoo ko war a taaral itam ba wan ko àdduna bi loolu nag dafa mel ne mujammaa bi am na lu ñuy xaar lu am solo foofu jaare ko ci bibliothèque yu bari yi nga xam ne boo demee di ko fa fekk lu mel ni kër xasida yi lu mel ni Euh, kërub alquran ak yeneen maktabaat yi nga xam ne moo nekk ci biir lu mel ne bibliothèque central bi nga xam ne mbooleem luy xeeti xam-xam waajal nañ ko fa waaye ci suñu wàllu patrimoine ak suñu wàllu culture dafa bari yu sëriñ Sam itam junju yoo xam ne mujjab ma bi am na lum ci mën a euh, jëme kanam liggéey ko bokk na ca mooy créer ay foras maanaam ay opportunité ngir nit ñi mën a wéel seenu njàng te wéele ko fii ginnaaw bu ñu amee bac te xam nañ ne loolu dafa am solo ci sàmm sàmm li ñu moom ak doon ki ñu doon ndax am sa bac jàngi moo fi ëppoon ba ni ko sëñ Sam waxee ñu amal bagu état bi di yóbbu nit ñi ñu jàng ji université Anta Diop di jàng université Cheikh Ahmadou Bamba UCAB waaye loolu li ko jiitu woon mooy nit ñi dañu daan am bag di génn di jàng te loolu daana tax nit ki exposé wu ci ay jafe-jafe yu bari yoo xam ne mën naa egg sax ci soppi ko doon mu doon keneen ku wute ak ki nga xam ne moom la doon bi mu fiy jóge kon ngir sàmm sunu identité doon ki ñi doon foofu itam mu jamaa bi am na lu am solo loo xam ne eh, danañ ko fi xaar mu war cee taxaw waaye suñ njàngum cosaan mii diggante jàng alquran jàng majalis nga xam ne wax na ko réew yu bari dañ ko organiser ñoŋal ko mu jamaa bi itam am na lu mën a def foofu eh, ci sàmm sunu ndone loolu nga xam ne bu ñuy wax tey boroomi xam-xam di leen ndamoo ci diine di leen tudde ay mag ñu baax ñu di boroom xam-xam njàng moom moo leen meññ xeetu njàng moom moo leen meññ kon sàmm loolu itam euh, mujamma bi am na rôle bu am solo boo xam ne ñu ngi ko ci ñu ngi ko ciy xaar bu dee ci wàllu développement itam am na lu ñuy xaar ci mujamma bi te mooy jéem a amal nag kenu yi nga xam ne mooy tax Euh, yokkute gi man noo amal njariñ jaare ko ci amal li nga xam ne mooy moyens yi ci wàllu xam-xam ci wàllu jumtukaay ba nga xam ne léegi gëstu ya dañ koy jubale dañ koy jëmale ci sunu soxla ñun bañ koo jëmale ci soxla keneen ndax keneen ki saa boo sukkandikoo ci moom dalay exploité te ñun bari nañ ay ressources naturelles bari nañ yu fiy meññee yoo xam ne buñ amee xam-xam bi war mën nañ caa sukkandiku ba lu bari ci luñ daan jëggaani ci li ñuy dunde ñu mën koo saytoo fii loolu nag ngir mu am faw xam-xam bi mooy jiitu kon tàggat nit ñi ci mboolem domaine yi nga xam ne aju na ci wàllu yàq eh, suqali aw askan loolu itam ñi ngi xaar mu jamaa bi am ci taxawaay bu am solo comme li nga xam ne ñi ngi xaar itam mu participer ci wàllu euh, dàq fii am ñàkkum xëy ci amal ay opportunité ci wàllu formation nit ñi di mën a def formation bay mën a am xarañ gi nga xam ne moo mënta ñàkk loolu itam ñi ngi rafet njort ne mu jamaa bi dina am lu am solo lum ci def bu ñu bëggoon tënk daal kon dañ naan euh, fikra asasiya bi nga xam ne wala fikra amma bi nga xam ne mooy fikra mawdon bi sëñ Sam doon traité mooy dañuy rafet njort bu baax ne ëllëgi euh, Touba mu jamaa bi am na lu am solo loo xam ne dana ko ci def ndax dañuy xaar mu nekk benn centre boo xam ne leeru xam-xam dafiy jolle leeru xam-xam xam-xam boo xam ne nag ci projet ak njàngaleem Serigne Touba lay taxaw kon lépp luy cosaan lu ñu fi fekk da koy bàyyi xel waaye lépp itam loo xam ne tey jamono soxla na ko ngir ñu mën a mbott li mission bi ñu yàlla sant ci defar àdduna loolu itam mu jamaa bi euh, def ko loolu moo tax ñu rafet njort ne kon ëllëg gi insha allahu taala ëllëg ju naat lay doon ëllëg ju dëppoo lay doon ak ni ko sëriñ Tuubaa xaada lahu laahu maxtaara lahu ñaane ni mu ko bëggee loolu mbokk yi buñ bëggoon a tënk rek dañ naan mooy tënkub waxtaan wi docteur sëriñ Sam Bousso seqoon ak ñun tey ñu koy jaajëfal bu baax a baax di ko ñaanal yàlla ndolleeli tawfiq ci xam-xam ak gëstu bu ko defee di sant bu baax a baax presse bi nga xam ne teew nañ fi rawatina waa MK TV waa waaye mbooleem organ yi fi teew rek ku lim da ngay juum mbooleem organe de presse yi fi teew moo xam ay presse écrite lañ di bind wala ñuy wax wala ñuy jaar ci internet bi ñu ngi leen di sant bu baax a baax di fàttali rek ne incha allahu taala suba am na waxtaan wu fi war a am ci buñ demee ba juróomi waxtu xaaj maanaam cinq heures demi mu jëm ci waajibuna naxwa turaasil xadimi maanaam lan moo war a doon suñu war gar ci ndono li nga xam ne moom la sëriñ Tuuba xaada lahu llaahu maxtaara lahu bàyyi ndono loolu lan moo ci war a doon sunu warugar sëriñ bu Mbacké Fadul moo koy def muy tàmbali incha allahu taala ci sëriñ Chouaib Chérif waaw Chérif Chouaib Mbacké Chérif Mbacké waaw Chérif Mbacké sëriñ Chérif Mbacké moom sëriñ Fallou sëriñ Chérif Mbacké moom sëriñ Fallou moo ko war a def kon suba ci eh, juróomi waxtu bu xaajalee di wàcce foofu suñuy kàddu di leen sant di leen gërëm asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. waaw sëriñ bi dafa ah,